supame carotte bi pataas euh, nabe ñaam bi yomb ak poora bi. Mame ma Fall ngi nii di yebbi ngir teeru clientam yi nga xam ni wut si ay ndugg tam xarit moo leen tax a jóg nee na njëg yi ren tane la lool. kastoor laa nduggee. prix waa xaw na seer tuuti rek nag. ndax daaw moom wax dëgg yàlla seeroon na torop seeroon na torop moom seer ba ñu ñu ko doon jaaye sax xamuñu nuñ ko doon jaayee. ndax prix yu seer waaye sant rek lépp daa sant la rek fekke nañ ko daaw fekk ko ren ko ñu ngi ñaan yàlla fekk ko at yu bëri te rafetal fekke Ngoné Diop moom it marché Yoff la nekk waaye nee na yomb beeg pooro bi njëg yi xaw naa cher ndax mënta ñàkk ci cere tam am naa yomb yu rafet mu ngi nii masàllaa ak poora yooyu yëpp day dem si cere ji waaw 2000 laa koy jaay 1500 ñeex tam xarit li koy yokk solo mooy cere ju mu àndal yaay aadama Ndiaye mi ngi ñuy wax naka la koy defaree dugub bi mooy ëpp ñu wàcc ci ceeb wàcc ci mboq mboq mi ak kii bi ñooy ñooy ñooy yem waaw waaye tu toujours dugub mooy ëpp tamxarit mu jot dafay am ay commande yu bare waaye defarum cere ji bés bu yàlla sàkk la ci moom si lay daan dooleem moom ak ñi mu àndal waaye cere ji nag dañ koy jaay di ci faj sunuy aajal di ci dimbali ay doomu aadama ren nag njëgi dugub bi wàññeeku na lool looloo waral ñaari téeméer lay jaayee bii xaw naa wàññeeku tuuti daaw maa ngi jaay woon kilo 1200 ren 1000 francs laa ko jaayee ndax damaa jëndeelu seer ñi may jaay bu nu wàññee rek ma wàññi. tamxarit daanaka ci umu islamique bi yëpp lañ koy màggal fii ci senegal nag ñuy faral di ci tudd yàlla lu bare ànd kook lu ak cere ju neex na si njóobeen yi def ndànk déwénati